dafa jël euh, maanaam dafa dafa ëmb ab lesaram xool ko natt ko malgré nat bi yàgg la parce que parce que mi-temps boobu jeex la parce que li waral lool na parce que euh, adversaire bi bu perte bal da doon ñoom da ñoom ñëpp si ginnaaw la ñu doon taxaw euh, football ak juróomi défenseur ñett milieu terrain ak ñaari attaquant donc loolu li ñu tegaloo Sénégal Sénégal paas yi gaaw dem ci kanam euh, porte porte ba yi daf doon yàq euh, loolu moo tax adversaire bi euh, replacement am comment ça s'appelle mu mën replacer vite mais bi ñu jógee ñëwee deuxième mi-temps gis nañ ñu entraîneur c'est foofu na aussi mooy qualité entraîneur gis nañu entraîneur bi ci mi bi bi ñu jógisee changé na match bi ni mu ko changé mooy gis nañu Sénégal jeu bi gaaw na

am na bu bu defee benn mi-temps boo xam ne ñoom versaire ci ci maanaam ci cest à que Sénégal euh, am na variante dans si maanaam jeu bari na variante boo xam ne boo ko téyee fii mu génn fee et loolu lu am solo la li nga waral nag mooy je pense que Aliou yàgg na xale yi donc donc tey am na bu bu defee benn mi-temps boo xam ne ñoom versaire yi mën nañu corriger et li ñu corriger et que loolu maanaam bu bu bu yàggee ci Sénégal bu ko Sénégal continuer nii euh, ak li mu def deuxième mi-temps Euh, jeu bu gaaw touche wàññeeku ñu dem ci kanam di éliminer je que Sénégal da nekk équipe bu naqaree ja bu naqaree gagné surtout que. mën nañu euh, jàpp am na surtout nañu sécurité défense. mën nañu jàpp ne euh, ko contre bloc bas yi. waaw bloc bas c'est bloc bas du Sénégal rek moo am que équipe buy joué bloc bas. Ah, pour ko dafa métti pour nga ko ni nga ko mooy am boo xam ne day gaaw. bi gaaw nag et nga def quatre touches da ngay def deux moo tax maanaam. jury ou ta équipe du cadre placé c'est veut dire que tu es obligé équipe toujours muy défendre di daw ci kaw xam nga nit buy défendre di dem di daw vers kaw day jafé pour mu défendre mais boko boko bayé mu taxaw en face xam nga euh, kuy def 1 m et 85 kg 90 kg bu taxé ni doomu jall do ko do fa jall donc moi je pense que lolu sénégal tay régler ndo war ni deuxième mi-temps sénégal war na ni problème mën na ko régler parce que jour aussi yak nañ foul am nañu mën na xamanteni